salaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala fala taxlamu nafsun ma uxfiya lahum min xurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yamaluun maa ngi lay fay àlaaji Sadio di nuyu mbooleem ñu ñuy seetaan ci biir réew réew di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifa général de Mouride di ci teg Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Maxtaar di nuyu njabootuk Serigne Sidi Maxtaar gépp soxna May ak euh, sëriñ xaadim cheikh Mouhamadul euh, Abdou Samad cheikh Abdou Latif sëñ Jili ak cheikh Abdourahman mu cheikh Abdoul Asis Baara ak mboolem njabootu sëñ Baara gépp maa ngi leen di nuyu di nuyu Moulay Hassis Guèye di nuyu sëriñ xaadim loo Guèye del ak euh, mboolem daal ku ñuy seetaan rek ci biir réew mi ak bitim réew. jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye jàng ni ngay naanee parce que toog ci plateau di naan ba tooy yaa ko teg sa bopp Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah dañuy ñëw ak yow ci point yu am solo tey ñu war a waxtaanee ko mu jëm ci actualité. Mhm. defe naa ni yëg nga li nga xamante ni xew na ci pénc mi jëm ci wàllu Miss Sénégal bi xëy xëy rek ñu ne violé nañ ko naar ba. nga xamante ni bii maanaam duggoon ñu maanaam daal dafa mel ni macro dafa am ci biir Miss Sénégal macro googu nag waral Miss Sénégal xëy rek ne wasin na euh, euh, viole nañ ko te ndekete am na doom ju am juróomi weer loolu jaaxal ñi nga xamante ne bi ñooy askanu Sénégal yow situation viol beeg ni yëf yi demee ak plainte yi ndaw si nga xam ne moom daanaka mook Hitler ñoo tolloo ay plainte ci liñ ko dóor ci ay plainte nga xam ne toll na ci trois cent et quelques plainte Hitler moom mi nga woon ci ay millions yi plainte mais ñoom ñaar daal sorewuñu noo jàngatee li nga xam ne bi xew na ci penc bi waa loolu de maanaam mbir la moo xam ne xam naa su ma xam-xam taxut mu bari ci. ci waaw affaire miis yooyu moom. Ah. wax dëgg yàlla xaw ma ci lu bëree bari parce que daanaka duma leen doon di topp. doo seetaan miis. Euh, daan naa gis rek euh, waaj a gaañu. Mhm. Euh, mm, Ambroise Gomis Maurice Ambroise Gomis moom mhm. dafa mel ni bi mu fi nekkee la xawoon na ëpp bës tuuti mais après Maurice dafa mel dafa yóbbaale woon sax bayre bi mhm. waaye ak alaakulahaal lu mën a am rek comme mbirum laal ay jigéen la laal société te ñëpp intéressé wu ci tamit du ñàkk ñu joxe ci suñuy xalaat mm-hmm. euh, li ci ëpp solo nag man mooy euh, pare wu ma woon sax pour wax ci nag wax dëgg yàlla parce que dafa bari lu leerul ci sama bopp lu leerul ci sa bopp waa lu leerul ci sama bopp ci ndaw si nga xam ne moom moo génn mm. euh, wax mm. ak ñi ko tontu ak ñi jàppale ndaw si ñëpp ñu ci baree bari dafa am ay laaj yoo xam ne wala yu war a leer yoo xam ne faw dañ ko war a leeral parce que. lu mel noonu. ndaw si dafa wax ne. waaw dañ koo violé. waaw violé bi nag moom bi mu koy wax. waaw daf ko doon wax ngir nit ñi jàppale ko ñu dem ci yoon ñi lijjanti ko. Hmm. wala nit ñi ñoo ko gisut di ko lijjanti ba xam ba xam ba gis kook doom mu leen doon leeral far mu jur coow. Hmm. yooyu yëpp dafa mat a laaj. Hmm. parce que jàpp ne euh, koo xam ne dañ laa violé waaw daanaka mu ëpp am at ak lu topp maanaam waxoo ci dara mm-hmm. te bañ dem ba beneen miis feeñ ñu war koo tabb gisuñu la ñu ne ananga te am na ñu ma dégg ci waxukaay yi ñu ne dañ ko doon dajaleel xaalis ba yëg loolu ne ko daal mbir mi nu muy demee mm-hmm. mu leeral ñooña mu jur bur wi mm-hmm. loolu lépp mu ngi ci léegi nag ndax moom ci boppam waaw liñ ko def da koo naqari ba mu jóg pour yoon setal Mm-hmm. ak ndax daf ko doon leeral nit ñi rek pour wax leen ne man am naa doom joo xam ne ci mbirum mis mi la ma toppee ba mu am. Mm-hmm. nii la demee wala daal parce que dafa mel ni maanaam daa mel ne coow li moom daa mel ne sénégalais yee ko gën a soxla ndaw si ci boppam moom. Ah, boo ko seetloo ni mu tëddee. Mm. te it li tax ma ñaareel bi ci des mooy taw pare pare woon pour wax ci mooy damaa jàpp ni mbir mu dul leer la rek. mbir mu leer ndax maanaam ñaar yu mel nii moom. gis nga coowul Sénégal bu fekkente ne dañ ne ab opposant la maanaam bu leeree danañ jàpp ab opposant wala bu leeree danañ ko danañ ab opposant mbiram dana ci yàqu. Mm. su boobaa moom day leer nañ wala day gaaw leer. Mm-hmm. waaye bu fekkente ne moom laalewul politique. daanaka moom institution yi fi nekk politique la ñuy lijjanti ñoom. maanaam bu fekkente ne wóor na leen ne ñi ko lëjal ak ñi ko lijjanti ñi ko ñi koy lijjanti. benn lañ. ñi ko ñi ko lëjal. ak ñi koy lijjanti benn lañ fii ne ñi ko lëjal ñoo koy lijjanti ñoo ko war a lijjantiwaat loolooy tax daanaka ñi ko lajal ak ñi coowul mis boobu ñu ko lajal ak ñi ko lijjanti ñi ko war a lijjanti benn lañ fii ne ñi ko lajal ñoom lañ demaat ne lijjanti leen ko moo tax duñ ko lijjanti <laughs> du kon day ko du loolu bokk na ci li tax man sawaruma wax ci waaye nag lu jëkk loolu mooy man ndaw si sant jonn mooy ki nekk euh, mis bi nga xam ne moom ci boppam moom lañ wax ne moom lañ fi yoole waaw am naa ay laaj ci moom yu mel nan mooy ndax moom dafa saxal ne waaw jam ñaajo ba fa Macky Sall di def Euh, kiiwam ba xaw ma lu mu fa doon def nee na ba mu ca ñëwee ñu jógee ca dem Radisson. waaw moom daa mel ne ni mu nettalee mbir mi. waaw foofa la yëf yi xewe est que exact mhm. foofa lañ ko ko defee. wala defee wuñ ko fa loolu leeralu ko. leeralu bu dee looloo man doon naa jéem a essayer di xool Macky Sall kañ la gëj jañ ñaajo. Mhm. ak ko bis booba kuñ ca tëddee est ce que nga ëmb ci ba am doom ba am juróomi weer mën naa nekk mais bi ma ko tolloolee. Mhm. daa mel ne man mm, mm, sama xel nangu ko dal. tollale bi jubut maanaam normalement bu fekkee joxe na date exacte rek war nañoo mën a jël ci date bi. waaw tolloole koog mbir mi ba xam est-ce que li mu wax exacte mën naa nekk mais bu man yi ma xam ci jam ko fa. waaw kuñ fa ëmbal maanaam mënut tolloo nga amaat doom ju am cinq mois nii. Hmm. loolu moom da moom jàpp naa ne. Euh, mën nañ koo mën nañ koo xool ba xam foofu rek dèjà problème la. Hmm. ak ndax moom ba mu jógee ci étal bi dem kër coordonnateur bi muy wax. foofa la mbir ma xewe bu dee foofu la xewee nag moom moo coordonnateur bi la moom maanaam du du du du moo kor na ah kim dem këram. waaw ñi ñi ñi posone ko fa kay. kooka kay kon moom xam na xam na lépp ñu bu ci des bu fekkee jam ñaajo la posone day dee ba sax baara ñu kii ko laa doroge doroge waaw euh, doroge moom waaw xam nga jam ñaajo bu fekkente ne maanaam bu fekkente ne jam ñaajo la wax na ñetti naar la woon ñetti naar waaw nga xam ne daa mel ne ni mu na waxee moom dañ ko présenté ay naar mu jóge fa dem tëddi mbir ma xew waaw nan xool ba xam doomi naar la am wala amul doomi naar boo amee doomi naar nan dem wëri naar yi ba amul doomi naar buñ ci tudd naar yi mm. maanaam mbur mu gën a leer léegi bu fekkee itam mm. dañoo ne am nañu ab miis ñu natt ko doonte man miis yi niñ koy natte moom d'accorduma ci ah. ndax rafet ci boppam ak nekkum miis man société bu nekk la rafet ci moom mm. boo génnee fii Abu Dhabi gii ak naari Kowet yi bakkan ak bëñ moom ak ak ay bëñ mën nañ ci milliard ñoom bakkan lañ la moom lañ moom la ñuy opéré moom la ñuy defar boo demoon fii ci Sénégalais yi ñoom maanaam bu dee ci tubaab yi ku sew ruuj te gudd ñoom nag daa mel ne tubaab yi la ñuy def la ñuy tànnal miis. Mm-hmm. mais du ñun. du ñun waaw. parce que boo xoolee. ñun moom suñ miis yi. dama naan est-ce que sax du miis yi moom miisu mburu moom lañ leen moom ci la génnee. miisu miisu mburu yi. miisu mburu suñ miis yeeg miisu mburu yi dañoo nuru xool ko. Ah day def nii rek tëkkaleeg mburu xool ko. miisu day def nii rek du am fenn fu mu jàddee. tubaab tubaab moom boobu lay wër moom miis miisu mburu jigéen ju mel na miisu mburu rek. <laughs> waaye bu dee nun senegal waaw dama koy wax ne boo gisee miis jonkoma ba mu fi amee. waaw daw dawaat rek imaam yi daw laxasu ci ne bu mu fi amati. loolaay nag loolaay loolaay waaw loolaa mën a foo <laughs> kuñ fa tànn ne rafet nga. waaw rafet nga cib sénégalais. Ah. ndax Sénégal moom. neexut ba neexut waaye bu ñu nee jigéen ja rafet na ñun ñooy wax jigéen ji daa tooy. waaw tooy waaw moom mooy mooy nit ku am yaram. koo mm-hmm. xam ne amul yaxam génnut. Mm-hmm. dégg nga sénégalais bu naan diw daa rafet moom day xool nampalukaay ba xool toogukaay ba ba noppi doog ne rafet na ak i bët. dënn baag bu ko amut moom mën mën mënta mënta mënta. <laughs> bu ko jigéen amul moom góorug Sénégal moom boo moytuwul du bokk ci ñuy rafet boo gisee uh-huh. ban jëlee jigéen ñi am loolu di leen di leen divileloo bam uh-huh. amee amaat dañoo gis ni muy def société bi ñëpp daw di xool imaam yi xam ne lii moom abu ci bala naaw sax ba ko kenn jëmul kër <laughs> jëmul kër ñi teel ko arrêté gis nga bu fekkoonte ne miis yi uh-huh. ci Sénégal lañ ko tànne nga xam ne rafetaayu Sénégal la bu paree miss bi mooy gën a siiw Bombardier ak ñoom Yékini mi mm-hmm. ñëpp leen di xam xam lépp ci ñoom waaw parce que waaye da ngay gis miss bi day xew ba xew yi kenn yëgu waaw waaw loolu problème la mm-hmm. mais mënuñoo tànn am miss ne dafa intelligent dafa rafet dafa def lépp waaw ba tabb ko waaw nga intelligent ba noppi waaw ñu doroge la te yow mosoo mos dorog nga xëy waxoo dara waaw lan moo tax waxoo ñu dem ci sa tubéy maanaam dem te yëgoo ko kumba nga yeewu gis na kat sama kër gii am na ko fi dëkkoon bii te santuma ko ko ah waxoo dara ah eh, la demee waaw waxoo ko dara nga yeewu maam loolu lépp nga teg ci sa tànk ne cell waaw mosoo ëmb nga ëmb waaw tek tekk mm-hmm. am doom ne cell di nàmpal sa doom na cell mm-hmm. maanaam loolu loolu loolu loolu loolu loolu moom maanaam lu mu ci jublu daal lu ci jublu waaw ay question la waaw ay question la daal mm-hmm. ay question la d'accord dégg nga loolu lépp dañ koo war dañ koo war a mën a xam hmm. ndax bu fekkente ne maanaam nit moom buñ demee ci sa tubay te waruñu caa dem moom normalement boo yeewu xam nga nit mënuñoo ñu sàcc la hmm. nga yeewu ba noppi ne maanaam sàcc nañ ma maanaam kuñ sàcc waaw war naa mën xam ki ko bu ñu xamut ki ko sàccet war naa xam mën a xam fi ko sàcc hmm. dégg nga waaw waaye yow ñi sàcc la xamoo fi ki ko sàcc xamoo fuñ ko sàcce ah. loolu dafa xaw a doy waar ci ki nit kuñ tànn ne intelligent nga bañ def la miis bu dee ñeneen ñi ma seen it ñi naan dañ ma doon mayee maye nañ ma maye nañ ma ci mayee nañ ma ci Sénégal àdduna moom ba mu judd ba mu amee ba léegi. lu baax moom foo ko fekk dañ koy xëccoo. waaw ku taaru bañ ne la yaa dàq say morom ba def la miis. Mhm. Hmm? nga wëlbati ku teg ca di jaayu. Mhm. ku ñëw di la waxaale kooku tooñu la yaa tooñ sa bopp. Mhm. mooy ñeneen ñi ma gis ñu naan may nañ ma diw ñooñu moom waxuñu ñun affaire am doom ak ëmb waxuñu ko. waaw maam li ñuy wax mooy viol viol. bu fekkee affaire viol moom. kooku ñun ñëpp a ci war a jóg ndax viol dafa bokk ci li nga xam ne dafay yàq dundug doomu aadama surtout jigéen. kooku ñun ñëpp a ci war a wax. mais ndax viol la ah. d'accord waaw kooku tamit il faut ñu ñu taxaw ci bu baax est-ce que viol la voilà bu dee nag ñi yoroon mbir mi moom mm. ñooñu moom coow li dana bëri ñu wane seen bopp mm. waaw mooy ni ñu ni ñu communiqué ndaw si baaxut mm-hmm. yaakaar naa ne boo jëlee nit ne ko aal ma sa jëmm ji mm-hmm. ma dem wuti sponsor nga njox ma sa jëmm ma exposé ko mm-hmm. mu nangu laa jox jëmmam nga dem wuti ci ay sponsor ba mu mat deux cent millions donte ñoom dañ doon nax mi si lekkuñu ca dara su demee ba ndaw signalé la ay jafe-jafe da war a bokk ci sénégalais yi koy xeexle waaw pour pour loolu bañ a kii bu boobaa kon hmm. kenn du ko xeex mais moom dafa wàññeeku ci xeex ak ndaw si te moo ko abun jëmmam dégg nga loolu moo ci problème hmm, dëgg la te euh, loolu lépp nag maanaam ci gàttal benn baat rek moo koy jeexal mooy muy baan jigéen ñi na nga xam ne maanaam ay ay ay ay damay feeñ théâtre sàngam hmm. maay miss bi ah. maay mannequin bi euh, dégg nga maa doon fecc ci kili bu diw amul njëriñ ñi gën a stressé ci àdduna mm-hmm. ëpp ay jafe-jafe nekk ci ay dansé mm-hmm. nekk ci ay mbir yu metti ay xat-xat mm-hmm. mooy jigéen ñoo ñu nga xam ne biñ tollee ca aasu sëy dañoo jël seen dund joxaat ko leneen loo xam ne daf leen a siiwal ba ñëpp xam leen jigéen benn njiglaay dong la am mooy dugg cib sëy di sëy saa bu waree sëy sëyi bu amul jàmm tey am ko ëllëg saa bu waree sëy te sëyut bu amul fitna tey am ko ëllëg kooku moom man maa la ko wax bu dee da ngay liggéey liggéeyal tey am jëkkër bu dee da ngay jàng jàngal am jëkkër waaye app bi nga war a amee jëkkër bu jotee demal wuti jëkkër hmm. gis nga jëkkër mooy li mooy mooy li nga xam ne mooy noflaayal jigéen ci àdduna ñi leen di wan na nag man théâtre sàngam laay feeñ koo ci dem ma nga ci appartement mënu koo fay hmm. dignitéem dootu ko téye ndax faw ay xam nga nit koo xam ne dëgg nga hmm. maanaam ngay jigéen di dëgg ñu tudda la tudd la tudd la ngénte la yar la jàngal la ngay dëgg mën a dem sëyi jur dëgg dem ba nekk fawukaay maanaam jógee ci dëgg nekk fowukaay rek loolu dafa garaaw waaw te dafa dem ba maanaam nekk fowukaay mënta weesu nit kuy wut dëgg wo weesu la kuy wut fowukaay ñi teg jox ko sa numéro mu woo la hmm. ndax am na ñoo xam ne góor gu leen woo xam na ne kii am foo ko tax a jóg te da ngay nangoo ànd ak moom kon fowukaay nga te ñoom xam nañ ko ndax da dem ba na ci population bi loo xam ne hmm. mënatoo jël taxi mënatoo sol mbubb solaat ko iPhone 13 bu génnee ñeme woo ko bañ a yor Mm-hmm. sëfam sëfam deux cent cinquante mille ñeme woo ko bañ a tegoo mm-hmm. dégg nga ñeme woo nekk ci pantre ñeme woo nekk ci chambre salle de bain sax saal salon ngay xëcc kiwir teg fa lépp te loolu amoo solde bu la ko koy may lenn nga man mooy bàyyi fi ñi man te man laa yor dem di wër ñi la man a yor te wër parewuñ pour yor la waaw ndax ñi nga xam ne da nga leen di wiise ñoom ñu defar nañ seen àdduna ba noppi mm-hmm. parewuñ pour parewuñ pour ànd ak yow loolu jigéen ñi nañ ko xam ay siiw ay nekk ci clip nekk ci théâtre kenn ku la ci wax xaqi xam Mm-hmm. bu la waxee dëgg stress bu doy waar la yor te ñetti góor doo nga lay gis kenn ki bu mm-hmm. ñëwee mën na laa mosal waaw mos la dem waaw mosal la mos waaw kenn ki bu ñëwee waaw Hmm? mën naa indi ay oto. waaw wan la ko. Eh. waaye du la mosal te dalay mos dem yoonam. dalay du la mosal. waaw am koo xam ne nag bis bu ñëwee. mën na laa mën naa ànd ak yow wan lay kat kat. Mhm. ànd ak yow di dem waaye fa ngeen di mujje mooy dugal la ci diil wala mu dugg ci problème ñi tuddaale la ca ñu tàbbal la ci kaso bi. mos loo dugal la ci diil waaw waaw. yooyu yëpp maanaam danse la boo xamante ne jigéen ñi nañ dem sëy pression adduna mhm. li ci gën a garaaw ab ah. xaalis dong la. waaw boo wàccoon fii ko ci mbedd mi. waaw gis nga ñi jëm nii. Hmm. ñi ah. jëm nii ñi jëm nii ñi jëm nii ñi ah. ñi départ aéroport jëm aéroport ñii wàcc. <laughs> ñii def nii ñëpp xaalis la ñuy wër man damay toog ba mu yàgg ma ne xaalis ñu ni di def ba am ko ñii ñii def nii ñii def <laughs> ñii war ñii di waaxu ñii toog kenn ku ne xaalis ngay wër nga xam ne maanaam fitna yi àdduna ab xaalis la. ab xaalis xaalis mënut a yomb. loolu la gars yi di def damaa xool damaa taxawal fajiri keroog nga war a def diina jamono xool mbedd ba yàgg ma ne xaalis xam naa du yow <laughs> yow nag yàlla may la jigéen moo mën a dund sans muy am dara ba pare li xaalis di jariñ mu am ko jigéen mën naa bañ a xaalis ba pare di dund parce que daa am ponkal mu yàlla tàggat ne ko demal wuti ko di ko jox nga xam ne da tëdd sam néeg di fudd mm-hmm, mm-hmm. bu gaz bi jeexee ñu sarse ko bu ceeb jotee ñu jëndal la ko bu tabaski jotee ñu xottil la bu say yëre tilimee sax duñ la xas kala kala ko war a defal la xasi mm-hmm. boo demoon ba jeex sax doo ci rus kala ko war a defal la rus nga xam ne yow xaalis mi fitnaal maanaam danaa ma bul dootoo laal xaalis. waaw danaa ko feccal danaa ko fonk. te loolu la yàlla defal muy. jëkkër ak jabar moo tax fonk leen sëy ngeen dem sëy. wallaay wax nga dëgg balaa ngay bokk ci loo ba nga xam ni bii dañ lay mosal mos la. Cheikh Bara Ndiaye borom def gis borom mos ñu ñëw ci euh, beneen point mu jëm ci li nga xamante ni bii moo nekk ci li nga xamante ni bii <laughs> non Cheikh Bara bokku ci mosul bos Cheikh Bara bos. <laughs> Cheikh Bara ñu ñëw nag ci politique bi. Ousmane Sonko ak euh, sorti Barthélemy Diaz bi noo gisee li nga xamante mooy Barthélemy def nañ ko investir nañ ko mu nekk candidat ki donc doon nga ci expliquer fan yële ñu génn donc léegi moom loolu c'est officiel leer na euh, te ki nga xamante ni kii tamit mooy Ousmane Sonko yëkkati na fa ay kàddu mm-hmm. kàddu yooyu nag waral tamit sorti bu démbam bi mm-hmm. loolu yëpp noo koy dëxëñee mm-hmm. faram fàcce ko. mu daa dee leer ci bopp ñi nga xam ne koy def ñetti tomb mu gaaw rek. ñetti tomb benn bu njëkk bi mooy. tomb njëkk waa APR. Mhm. seenu ñàkk a mën a politique. Mhm. moo réussiral mitinu Bart bi. Hmm? Bart 15 jours ci ginnaaw bi ñu koy fal dañ doon naan est ce que moo soxam sax kan moo ko a xam ne ñoo tolloo woon daanaka pouvoir politique. mu falu fi ñu naan ko ñëwal wuy ji ñu palais de justice. indil ko fi. Euh, actualité yoo xamante ne. Mhm. candidat bu nekk soxla nga ko. ñu defal ko ko te ko. Mm-hmm. mu jóge fa di génn fii ci mbeddi ndakaaru yi ñu dajale police jëppal bépp ñu taxaw di naan Bart ay dox. waaw da kartali bépp mais caméra yëpp wëlbati ko waa topp Bart. Mm-hmm. ca guddi ga bi mu demee ci Pape nga Ndiaye. di def mm-hmm. émission Pape Ngagne émission yi daawul feesu dix mille wala lu ko jege Tay FM gépp sax. keroog Bart vingt mille vues la am direct pour Facebook ak euh, ci YouTube bi. xam nga loolu. waaw gisu loolu da lay wax ne Barth jóge na ci maanaam ni mu ni ni popularité am wu dafa gaaw. dafa gaaw lan moo ko defal Barth. Mhm. waa APR ñoo ko ñoo koy topp di ko xiixaan. Mhm. ba mu indil ko nag mu def ab mitin boo xam ne tamit xam parce que nit da ngay am cumukaay. waaw xam nga boo demee bu fekkee euh, Khalifa Sall daf lay jàppale. Mhm. Cheikh Gueye di la jàppale nga dem ba xaar yàlla nga taxaw fa di def mitin. Cheikh Gueye bu génnee baat mit kii génn. Sonko bu duggee rek ak ak ak sëñ Moustapha day indi day indi bruit bu bari. waaw loolu moo tax mitin bi mu def. mitin la boo xam ne. wane ne ne opposant Sénégal ñu ñoo téye ñoo téye ñoo téye ñoo ñoo téye monopole bi parce que du ñoo ko téye parce que lee moom du mitin bu ndaw hmm. te pour te dire mooy ci bi mitin bi daw bi ko Macky Sall gisee dafa woolu Diouf Sarr hmm? waaye loolu moom man maa la ko wax fii da ko woolu mu dem wuy ji ko xaw ma nag lu mu ko doon wax mais moment bi Barth yi nekk fii Diouf saar dem na wuy ji Macky Sall hmm. loolu moom am kon tiitaange la bi ñu ci jógee tamit gis nga laal na ne dem nañ def conseil laal naa laalaat na kii bi juge yi loolu dinañ ci ñëwaat na ci. Euh, indiwaat poste premier ministre. waaw te loolu lépp daf koo indi nii pour teg pression ay nitam. su nee hmm. léegi damay indi poste premier ministre mooy damay. waaw damay defaat remaniement. te xam naa ne man yaakaaruma ne Macky ñeme naa laal gouvernement bi fii ak élection yi. li mu hmm. bëgg mooy kenn ku nekk boo gañewu sa dàq leer na. pour gars yi li ñu dencoon ñu génne ko mhm. gën a campagne pour pour kii te loolu lépp maanaam ñu ngi ko liire ci mitinu Barth bii mhm. dégg nga Macky Sall bi mu bëggee indiwaat premier ministre yàgg na boo fàttalikoo mas nañoo toog fii ma ne la ba mooy ba fi juróom-ñeenti ministres yi doon def seen conférence de presse ba ma ne la ma ne la conférence bi doo ko gisati mukk parce que dafa wane ne premier ministre mënut a ñàkk waxoon naa la ko daaw dootuñu ko defati mukk booba la Macky Sall pare woon pour dugalaat ko mais gouvernement bi la mënut a woon a laal mhm. parce que pression politique bi fi amoon ci mois de mars yeeg Covid beeg yooyu sañut woon jékki-jékki laal ko soo gisee moo annoncé ko nii mhm. a teg pression ay protocole boobu. waaw protocole damay wax ne protocole boobu ci boppam maanaam kayit googu. waaw googu ci boppam moom moo njëkk a nekk ñàkk a nekk jàmm. ah kayit kayit gi ci boppam du jàmm. ay imaam ko ci ay imaam ak ku ko mën a jiite ay ñoom mën jaay siisee ñoom ñëpp seen kayit googu du jàmm. xam nga Sénégal ah. dama leen di ngat kay parce que Sénégal da ngay ah. xam nga lan moo ko yàq. da ngay suyëb théâtre théâtre bi jeex nga bañ parce que sponsor ya tax. Hmm. ñoom diire bi ñu amoon expiré na. mois de mars moo taxoon seen affaire boobu amoon. Hmm. lijjanti nañ problème yi ñëpp liggéey ah. yu yuñ jublu ñu naan nañ siñe ba xam jàmm day am ak du am kooku soxla wuñu ko xam nga lu tax. Mm. fii Sénégal la ay élection am présidentielle deux mille dix neuf. Mm-hmm. avant ñuy dem ci élection yi ñu xam ñen ñooy dem. Mm-hmm. ak kan mooy gagné. ak ñaata lay gagné te biñ demee noonu la demee. Mm-hmm. waaw amu fi. waaw am na biñ paree gis nga benn pëno tàkk Sénégal. dañ ko signé woon. kon lan moo tax ñu ñëw tey naan nañ signé. dem jëpp jub ay élection laa wax de lu garaaw laa la wax. waaw xam ñan ñooy dem ci élection yi. waaw ak kan mooy gañe ak ñaata lay gagné. te loolu lépp dañ ko wax ci télé yii nga dégg ñu ne ñii ñooy bokk kii mooy gañe lii lay gañe ñi dem ca mu am. waaw daa tax sénégalais yi génn di xeex lañ toogoon siñe ko ca mo Sonko ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti moroomam yooyu signé ko ne ne duñ d'accord ci ci ngañe gi ñu Macky Sall sàcc nii. waaw lan la jariñ. dara kon toog di siñe lu muy jariñ. tus xam nga li nekk li am mooy. Mm-hmm. maanaam li tax ma ne la kayit gi moom ci boppam ñàkk jàmm la. mooy jabu liisa la. diaboliser diaboliser Sonko la ñuy diaboliser mooy ñun yàgg nañoo politique. waaw dafa mel ne léegi dañoo wane ne ak gan dafay ñëw. goo xam ne maanaam fitna képp la. su mhm. suñu ko woowul lijjanti ba xam nga wër-wërloo bépp Sonko lañ soxla. waaw mu toog signé. dana indi fitna ci réew mi loolu day wane ne présence Ousmane Sonko. gis nga mhm. këyit googu. bu dul woon Ousmane Sonko mooy opposant Sénégal fii. waaw nekk fi leader opposition. Mhm. kenn du ko signé. ak kër nag bu fa dëkkee dëkk ci jàmm ba mu yàgg soxna yi bu ñëw gane si ñu nga indiw kayit naan nag kenn ku ne signé na du ma sàcc waaw soxna yi bu nga bëgg a waxal da nga koy nëbb dégg nga nañ waxante dëgg rek wala nga wut dafa am loo xam ne ñun signé kayit googu suñ Ousmane Sonko da waroon a wax signé naa ko ba pare <laughs> xamalan lañ signé ñun xamalan lañ signé ah. Macky Sall mooy suñ président ah. Macky Sall xamalan la signé mm-hmm. république laa leen di yore mm-hmm. ci république bi ngeen tëral ci laa leen di yore lool la waat loolu la signé waaw république xamalan lañ signé ak république ñun. waaw mooy jàmm moo fi am. Mm-hmm. su jàmm amut ku mm-hmm. ñàkk indi jàmm ñu duba la kon bu ñu wàññee ko waatee gannaaw waat république bi naan dañuy signé waat ganeen kayitu jàmm. day mel na dañoo nekk libi wala dañoo nekk ci état de crise wala dara. waaw dëgg la dégg nga. Mm-hmm. kon kayit googu ci boppam ñàkk jàmm lay firndeel. ak jabu liise Ousmane Sonko. d'accord loolu moom mooy li wér. gis nga nag euh, bu loolu lépp jàllee xam nga dafa am yoo xam ne kenn mënu ko kenn waru koo signé maanaam ko koo la wax signé sax da ko war a mbéj. Ah. jàmm daa dëkk ci suñ biir ba pare. waaw bu fekkee élection yu jaar yoon am na. Mhm. résultat yi ci génn normal. Mhm. candidat yi ci bokk ñu bàyyi leen ñu dox ni ñu war a doxe mhm. maanaam ñàkk jàmm fan la fiy jógee. fenn waaw kon léegi lan moo leen wax ne kon daa am yu ciy bëgg xew ci yooyu bañ naa leen bu amee bu bu leen génn. dégg nga mi ngi mel ne nga ñëw di ma garder ma naan la signal ne doo sàcc. wala nga ñëw di di nekk sama kër di fa liggéey manaan naan la signal na doo tëdd sama doom yi liñ signé contrat bi ñu signé maag yow loolu bokku ci loo ci signé moo tax seen kayit googu moom ki kayit gi ci jëmi boppam ak idée bi mhm. maanaam mooy problème moom ci d'accord nan la nit di nekkee Sénégal di xalaat ne élection yi ñu jëm mhm. nan signé ne jàmm rek la ñuy def mel na maanaam daa am lu xew luñ xam ñoom bay wane ne bu accès na jàmm rek am tamit waaw léegi Macky saal du bërki dem moo taxaw France ne moo yor lépp waaw ki yor lépp kay lépp mu jeex ah ki yor lépp na. waaw yor lépp na signé lépp mu jeex moom nañ dem ca Macky Sall kay mu signé ne moom. Mm. dana respecté lii. waaw ah, moom nee kenn du ko xoq. li ko waaw dama ne moom kay noo moo yor lépp la wax. Mm-hmm. waaw na signé rek mu jeex na signé ne moom dina teg élection yi ci yoon. bu ko tegee ci yoon jàmm am. bu ko tegut ci yoon. Mm-hmm. ñàkk jàmm am te moo ko fi indi. loolu mooy affaire bi bu dee nag ci affaire Ousmane Sonko ci boppam. waaw kayit gii wax naa la moom lay jabulise te lu dul kayit géet moom lay jabulise gis nga Sonko. Mm-hmm. dama lay wax benn affaire nit ñi ni ñu koy jabulise dafa metti ah tamit dëgg nag lu tax nga wax loolu. Sonko mooy nit koo xam ne gis nga ci istuwaaru Sénégal. Mhm. maanaam nit ku ñuy def noonu amut xam naa ne ku dëgër la nag. ah parce que teg mi ngi mel na yow Sonko kii biteel bii mooy sonk waaw nga ne ko yow fenkat nga. waaw maanaam te di ko booleeg di ko théorie ba maanaam ci théorie yi gën a kawe pour wane ne kii fenkat la. Mhm. alors te soo génnee lu mu fen kii ab sàcc la. waaw di théorie maanaam doo wax sàcc la nii rek sànni de. Mhm. da ngay jéem a boole ko voilà parce que di jéem a argumenté. di mhm. jéem a justifié ne kii ab sàcc la. Mhm. loolu def nañ ko Sonko. li ma la wax bu ma bu ci bokkul rek ne ma bokku waaw kii terroriste la. waaw di ko jéem a théorie. rebelle la. pédophile la. lu mu wax du dëgg. maanaam dafa nekk maanaam petin la dafa am problème wax dëgg. waaw dégg nga dafa soxor. dafa rancunier dafa arrogant. yooyu yii ma la wax yëpp benn bu ci nekk maanaam nit a ngi toog di ko wax Ousmane sonk waaw léegi nag gis nga ñoom. waaw dañoo war a xam ne gis nga ngànnaay yi ci loxo yi. waaw du ngànnaay. Mm. ngànnaay yi ci loxo yi yi ci xol yi moo ko gën a kawe. Mm. voilà te ñoom wane nañ seen position buñ am ci ak ku leen opposé wu. tamit dëgg te mm. Ousmane Sonko deful leen dara deful république bi dara tooñul kenn. Ousmane sonk deful lu dul dëkk ci réew mi juddoo fi ni fi Macky Sall juddoo yaroo fi jànge fi mhm. ni mag yoon wa Macky Sall jaaroon ba nekk président la gis xeemeem ko bëgg caa jaar Macky na ko doo ko fi jaaree te moom ba mu fi bëggee jaar ñu bàyyi ko mu jaar fi mhm. lii doo ngay problème bi mag Ousmane Sonko def def fi kenn leen mais gis nga ba ci jaabuli sa dafa yegg ci mhm. maanaam day mel na sax lii ngay wax Ousmane Sonko fi ne boo ko xo bu ñu ko gisee danaan xoola après Sonko la bokk quoi parce ñoom jàpp nañ ne boo nee Sonko aw saaga nga ci war a teg dama koy wax sama sama benn sama benn oustaz ma ne ko soom ko daa mel ne kaña gu génn bëccëg ba noppi romb yi donga moom du doy foofu ay xeer rek xeer jàppal jàppal wuup wuup parce que Sonko mooy koo xam ne damay wax naan yàlla na ko yàlla dimbali ba du juum mm. parce que société bi askan wi sax terrorisé nañ leen ci Sonko ba nga xam ne bu juumoon benn njuumte rek mbiram yàqu mm. parce que jàpp nañ ne maanaam xam nga diaboliser dafa garaaw xoola xoola xoola xoola yaa xam mm-hmm. nga xam ne dafa mel ne prop gis nga yaa xam mbay bi mu bi Sonko Euh, bi bi bi kilifa. bi ñu ko vidéo génne ko. waaw yaa xam mbay dafa toog ngi laaj ko ci mu mel ne kuy bëgg a jooy naan kilifa li ko waa ji def dafa ñaaw wax ak sa xarit mu ne vidéo pare jël ko di ko partagé. Mhm. ah loolu dafa rafetul. Mhm. te yaa xam mbay keroog bi fii Ousmane Sonko di wax ko xaritam Cheikh Issa Sall. waaw du moom moo demoon ca seex Issa la ca xaritub Sonko jël wii audio ba di ko wëlbati di ko tasaare. waaw léegi kon li dal xalif kilifa moom bu dalee ci kaw kilifa. dafa metti te wax na dëgg dafa metti waaw moom moom baax na Sonko la a na dagan mm, mm, mm, loolu mooy problème te boobu dañoo dem ba terroriser ci askan wi parce que nu ma la ko nu ñu leen terroriser mooy mm-hmm. tey quatre-vingt-quatorze milliards yi mm-hmm. coow nañoo coow ba sénégalais yu bari defe nañ ne Sonko lekk na ci mille francs waaw nañ ne moom Sonko doonte da doon dénoncé amoon na lu mu ci am mm-hmm. man wax naa la fii ah, euh, famille boobu man maa nekkoon seen sëriñ bi leen doon ñaanal ci ci ci loolu man bokkoon naa ci seriñ si bokk yi doon ñaan yor kurus di ñaan pour li maanaam lépp Mhm. posé naa ko question mën na maa tudd tur bi mais télé la question mhm. ki nga xam ne mooy seen euh, patron famille mooy mhm. ki leen jiite woon nga xam ne bi ñu defee collectif bi moo ko jiite waaw booba yàgg na mën na ñett ñetti at ci ginnaaw ma ne ko waa Ousmane Sonko mi lu ci yoonam da cee am dara mu ne ma Ousmane Sonko de lu dul defal boole wu ko ci amu ci mille francs yàlla dong la ciy defal d'accord te li ma lay wax ni yaakaar naa 2017 la ma ko waxoon xoolal ni kuy defal yàlla ci benn dossier ñu fexe ba gëmloo sénégalais yëpp ne yow da nga cee bëgg a lekk waaw maanaam xool loolu ni mu méttee saa njóogu benn tuuma. Mm. sëñ Cheikh day wax ne bis bu nit dee. Mm. buñ ko ne rayoo nit maanaam bis buñ demee yowmal am fii yàlla atew ba noppi bul ne rayu ma nit parce que di nga wax benn moo nit ray ko mm. parce que accusation moo garaaw. waaw te ñun Sénégal dañ naan duma ma lekk lu araam maanaam du ma dugal sàngara sama gimiñ du ma dugal lu riba sama gimiñ. Mm-hmm. mais fàtte nañ ne dugal lu araam dafa am waaye génne lu araam dafa am. Mm-hmm. maanaam wax ju araam. waaw loolu dafa doy waar te Sénégal dañ koo man jàpp as gor. Mm-hmm. tey par exemple mbirum Adji Sarr waaw am na Sénégalais yu bëri coow nañoo coow ba ne léegi waa Sonko violé wu. waaw waaye mos na. waaw ah ñuy wax loolu waaw. mos na xam nga loolu moom ñëpp ci d'accord daanaka. waaw te yow koo xam ne nii maanaam dafa doy sëkk rek koo xam ne yow mosoo ko téléphoné. Mhm. mosulaa téléphoné. Mhm. enregistré woo numéro enregistré wut sa numéro. Mhm. maanaam xamante wu leen amul lenn luy liyee ne yéen ñaar xamante ngeen. waaw ñu fexe ba ne la léegi yow mos nga ko bu fekkee mosoo ko loolu loolu mënut a rey as gor. waaw mën naa ko. ah te pourtant yooyu yëpp askan wi ci boppam. maanaam état bi man mënoon nañ leen ba ba ba dugal leen foofu. Mhm. ci mbirum usmaan Sonko. loolu nag maanaam mooy li waral imaam yeeg ñëpp seenu dossier bi Doudou Wade taxu leen a jóg Bougane taxu leen a jóg kenn taxu leen a jóg. Ousmane Sonko la ñuy viser. Mhm. di wane ne daa am góom wala boog virus bu nekk ci Sénégal léegi tudd Ousmane Sonko. Mhm. fitna la àndal joo xam ne bu si ñëwul rek dana problème dana am. usmaan Sonko àndul ak fitna. voilà àndul ak benn fitna wala boog ah ku ko xam. waaw démontré ko ci plateau yii. moo gën nga toog fanaan sëñ Baara Ousmane Sonko la faral. waaw déedéet. bu fekkee Ousmane Sonko dafa am bu fitna bu mas a fitnaal Ousmane Sonko mooy koo xam ne maam góor jasaaka amul juróom-ñetti nit. waaw amutub garde corps ay xaal. amutub garde corps mitinam ci ay xaal amul garde corps. Ousmane maam góor jasaaka lan la waxul Ousmane Sonko ci Sénégal est-ce que mas nañ koo kar mas ngaa dégg ñu ne Ousmane Sonko maître El Hadji wax na ko dara dem nañ këram di ko toppi wala wala Aïssatou Diop Fall wala di wax na ko nangam dem nañ di ko menacé wala dara su weesoo nga toog ci sa clavier oh. nit toog ci télé di oh. wax li ko neex ngay commentaire li la neex waaw loolu da xanaa mooy fitna lañ ko bëgg a wax ah, te loolu moom kon kii wax li ko neex mm-hmm. moo nekk ci fitna wala kii commentaire lu ko neex ah. waaw donc war nañu laaj ndax xaal yi dañoo war a voté ci élection yi di ñëw parce que maam góor mitinam ba ca tëngeej ay xaal ñoo <laughs> temps jeex na tak est-ce que xam nga lool. waaw ak nañ kii ba rek. nee na may nga naan hmm. boros. fii amul dara jeex. yëpp yow biti affaire bi gaaw na. temps jeex tàkk. 40 laa tàmbali. kaa xanaa sa temps bi jeex na. Hmm. temps jeex na tàkk nee na may. léegi kon affaire affaire borom def gis lay tàggoo. affaire juge yi nag. jeex juge kañ mënoo koo juger. waaw dinaa ñëw ci bu beneen bii di ñëw. beneen bi ñëw nga ñëw ci dinaa leen ñëwal ci doyen de six bi. am na yu ma ci bëgg a wax ci waroon a wax. parce que doyen des bi dinaa ci ñëw dinaa ñëw ci procureur de la république dinaa ñëw ci procureur général. ah léegi yow waaw léegi.